doomu aadama bi nga xam ne dañ ne sëriñ la jàng na dafa war a miraas ñu di ko woo muy miraas dugal nañ ko ci lu rëy ndax alali jirim suñ borom daf cee tëkkoo tëkku bu metti inna alladina yaakuluna amwaala alyataama zulman innama yaakuluna fi butunihim naaran wa sayaslawna nga xam ne dañuy lekk alali jirim ci tooñ safara rek la ñu lekk seen biir te daañu daañu jaari safara daañu dugg safara yowmal qiyaama alalu jirim diis na diis koo xam ne ki koy miraas mi nga xam ne moo siiw ci réew mi ñu naan gërëm tànk daganul ku ko lekk lekk nga ribaas fi ngay xamee ne gërëm tànk bi yoon mën ngaa miraas miraas mu gàtt nit ki gaañu am benn doom bu góor ak bu jigéen amul ndey amul baay bàyyi téeméeri million nga dal dina góor ñaar jigéen benn góor nga jox ko ñaari cër jox jigéen benn mu yomb ba dee doo fa yendu doo fa fanaan doo fa naaje buñ seetee dërëm tànk bi muy xaalis bu bari ñu jox la ko nga yóbbu yóbbu nga riba yóbbu nga alali musiba yóbbu nga sobe yóbbu nga safara nit ki xaqam xaqam la sañ laaj bi nga bàyyee say soxla toppatoo too ko ngir ñëw sa mbokkum jullit li ci faatu gannaawam coono ba nga fa am rek lañ la wara jox mom lañ la amel waye yenn yi du yoon ku ragal yalla ta xalat ëlëk do ko def señ ji dañu wara jang mira bu baax ba mu mok xamne bu ñëwé di séddale mira dis bi mu dis taxna ak bépp mira mo xamne ne maama nga ca ca ñay donn jafe na jafé go xamne borom téere yi dañu ne képp ku bëgg a xuus ci xuri safara yowmal xiyaam dul séddale maam alal joo xam ne maama nga ca doona bu maam nekk ndax gi mu kon nag dafa laaj jàng njàng mu mokk mu leer mu wér ñu soog koy def waaye séddale rek benn fiftin boo xam ne xañ nga ko ci ki ko moomoon moo xam yaa ko lekk wala da nga koo jox keneen ci xam ko faral ko wala ñàkk xam te ñàkk xam tax nga jox kenn lu moomul loola le mel na ne yow yaa ko lekk te ëllëg da ko fay miraas du caaxaan lu mën a topp toolam ci fi jóge bàyyi fi alal xam ne lu mu fi bàyyi lépp te fàggu woon ko moo xam mu lekk ko wala mu jëriñoo ko wala jëriñoo ko dafa dem bàyyi ko fi wacce ko ñeneen lépp lañ koy laaj ëllëg lépp lay lijjanti dana lijjanti lépp ëllëg ñoom ko fi bàyyeel buñ ca jaamoo yàlla ñoo ko moom buñ ca moyee yow mi ko fi bàyyi da am ca bàkkaar ba ndax yaa leen ko may bu dul woon ak la nga fa bàyyi duñ ko mën waaye nag sellal moom baax na nit ki gannaaw jullit dafa war a sellal li muy am sellal li muy lekk sellal li muy sol sellal fi muy dëkk mooy tax bu jullee ñu nangu ko buñ jógee ci julli wax ci miraas tuuti ñoo xam ne noonu lañ ko gàtt ndax jamono bi mënu ko dul may dama cee tegoon